Euh, euh, dafa am situation boo xam ni benn view leader politique mosu ko dund pratiquement au Sénégal. Mhm. Euh, dafa nekk candidat d'une grande coalition d'un parti d'abord et d'une grande coalition APR Benno alors que du du responsable du numéro un du numéro deux. mm di que amul Amadou Ba c'est le deux. Mhm. de l'État mën nga ko tuddee noonu premier ministre la. moom mooy le coordinateur du gouvernement mais il n'est pas le chef de la il, il fait même pas partie de l'APR euh, les origines bon loolu dañ koy euh, tooñ mais il fait partie quand même de l'APR mais gars yi dañu koy mais les origines euh, mais il n'est pas chef mhm. du chef gars et c'est la première fois c'est-à-dire que en général parti dañuy jox dañuy jox soit leader bi nekk candidat wala au moins numéro 2 bi mais Amadou Ba du numéro mais est-ce que APR am na numéro 2. sax El Hadj Assane non justement loolu laa lay ni oui du coup kan la yilif foofu. léegi nag loolu moo indi problème bii. Mhm. problème yi ñuy dund yëpp foofu lu jóge gars yi nangu nanguñu nanguñu kilifteefam. Mhm. ñoom gars yi li bëggoon mooy Macky nekk candidat comme mënuñu am Macky nekk candidat boo leen tegalee kenn te gisuñu seen bopp dañ naan suñu noppee. mbir bi bu sottee dañ leen di écarter. mais comment ça se fait Alaaji Assane gisuñ ci seen bopp. parce que xam nga aujourd'hui ñu bëri ñu ngi wax ni que tey euh, derrière Amadou Ba c'est c'est Macky euh, qui est là euh, aujourd'hui je ne vois pas ban façon lañ ci dul bañ a gis seen bopp ñoom ñëpp APR la ñu bokk donc si toutefois Amadou Ba gagne donc c'est c'est l'APR qui gagne donc chacun va y trouver son compte. non pas chacun. pourquoi. léegi ñoom lañ jàpp ni ci organisation APR ak ni mu demee ak Benno Euh, ku nekk ci ñoom leader yi da nga sa benn genre clan en interne. Mhm. Euh, am ñu la topp à les amis de Diouf Sarr. nangam mhm. nangam ku si nekk organisé soo faloo say nit ngay teg ñoom loolu lañ jàpp de soo faloo parce que am na ñoo xam ne. seen déjà si ñi commencé na. avec euh, le. le nouveau gouvernement là. Ouais. parce que ñu bëri nee nañ ñi ñu seddu ce sont des des proches de Amadou Ba ou ñoo xamante ne ñoom ñëw njëkk a porté li nga xamante ne moom mooy sa candidature à la candidature. jëlal Jules Diop. mi doon wax temps yi. Jules à partir du Canada je ne sais fi mu nekkoon doon sànni xeer Ablaye Wade ak Macky moo jëkke loolu. Mhm. avant avant Assane Diouf l'insulteur numéro un. Mhm. c'était Jules. Mhm. stratégie boobu bi mu ñu bisee promotion la ci am. fii tamit. attaque yi muy attaque Amadou yéen ñëpp appel du pied lañuy def ñi ñi bëggoon dem dem nañ ca début ba. Mhm. jël seen responsabilité dem nekk candidat mhm. Aliou Ngouye Ndiaye Diao et cetera actuellement ñiy wax yëpp dañuy def appel du pied. Mhm. ak John appel du pie mooy fexe nu leen anu Amadou defe médiation. wax ak ñoom jéem la xool ñu position ëllëg bu faloo. ñu mën a positionné wu malheureusement pour stratégie boobu. bu Amadou genre chantage la. Mhm. bu Amadou sensibiliser à ça. plus ngay woo gars yi bu ñu lay chanteloo. Mhm. plus am ñuy rébellé mhm. loolu mooy paradoxe stratégie boobu léegi kenn rek moo mën a souffler la fin de la récréation mooy le président Macky Sall. su noppee rek dañ koy taxé de complice. mais bu ci. il faut mu wax parce que y a les il pour discipliner gars yi bu leen bàyyee day mel ni dafa teg moom itam benn système mooy. bu ñu bàyyee Amadou dafa nooy dafa ni muy politique baaxul boo ko seetaanee waxoo ko dëgg moom itam dañuy perteloo mm-hmm. mu mel ni tamit dañuy dañ koy bàyyi ñu critiquer tout tuuti pour mu gën a pour mu gën a góorgóorlu xam ne mm-hmm. Amadou ne pas très politique mm-hmm. amadu Ba moom par exemple soo ko nee political dalay day social moom jàpp na ni politique yëpp social la defal ay nit jàppale économie. Mm-hmm. yooyu moom moom noonu lay politiquer boo xoolee unité unité yëpp Parcelles Assainies mm-hmm. ba Grand Médine ñoom boo leen laajee ñoo ngi xam ne Amadou noonu lay politiquer. en mm-hmm. réalité par la par la sociale et par l'économie. donc euh, gars yi ñoom waa APR bëgguñu loolu dañu bëgg ab politicien. mais li ñu li ñuy fàtte mooy nit mënul parfait. il faut que ñu compléter ko ci li nga xamante ni moom foofu la amee faiblesse ñoom ñëpp ñu ñëwoon en autour de lui ku nekk jàpp ci benn côté li nga mane li bu dee Farba Ngom mane la lii keneen mane na lee keneen mane la mais moom mii leader bi nag mu warul mën a imprimer markam non euh, pour le moment wane xam nga pour le moment wane cadence bi nga xamante ne peut-être moom la ñu moom la ñu war a demee parce que parce que waa Pastef ñoom tooguñu rek non non si loolu loolu war na ko def mais Macky mayeegu ko possibilité boobu. mais c'est lui le candidat. non mais c'est lui le candidat mais Macky mu ngi fi taxaw ni déj Macky demul. Macky demul te Amadou il fait attention à Macky parce que gars yi muy wax nii yëpp moom wóoru ko ba xam Macky est derrière ou pas. wóoru ko ba xam est-ce que Macky du def ay pexem xam nga Macky ay droit yii yoonam nekk <laughs> ci fin bi nii mën na ne eh Amadou demal toog sa yow sax yow sax arrangé toog gis nga ni mu def Doudou Ndir mm-hmm. <laughs> keneen du mat a wax comme li ko doon tooñee nee na léegi dafa bàyyi njuñ njaay waaw waaw bàyyiwul booba la ko commencé nag mm-hmm. léegi nag Pastef